liggéey xam naa ne gouverneur de la région de Diourbel dana ci ñëw mooy dafa am liggéey boo xam ne Sénégal dañ koo séddale juróom ay pàcc pàcc pàcc muy juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar ñu teg ay charte ak i loi ak i décret ci réew mi wax ne commune bu dee commune nii lay doxee ñi nekk ci commune ba nii lañ war a doxee tënk ko ci doxi ay procédure yoo xam ne administration ñoo koy seere di ñu contrôler bu président de la république monsieur Macky Sall mi nga xam ne yàlla dogal na ko am xam-xam la ci réew waaye ku bëgg liggéey la waaye ku bëgg réew mi la waaye ku xam ni développement la ci réew mi di ko am yéene ci Touba dëkk bii ñu nekk tey teg ay critères boole ci Touba ñu dugal ñu ci ci commune yi nga xam ne war nañu ndax dañoo jël fukki commune ak juróom muy fukki région ak juróom dañoo jël fukki communes yi ak juróom jël ñeenti communes yi nga xam ne du ñu ay région waaye commune yu mag lañ te Touba bokk ci Pikine bokk ci Tivaouane bokk ci Mbour ci muy fukki commune ak juróom-ñeent la jël boole leen ne leen danañ leen président de la république mi nga xam ne ku mën a lijjanti ak xaalis la te bëgg na Fongolembi mel ne Dakar li waa Dakar di dund waa Fongolembi du ko dund waaye li waa Dakar di dund waa Touba di ko dund waaye li waa Dakar di dund waa Matam di ko dund mu jël projet bu ñuy wax PACASEN muy appui projet buy dimbale communes yi ngir ñu mën a def infrastructure publique yi nga xam ne moom la war a am te seen doole matiwu ko ñu mën a bénéficier wu ci loolu boole ko ak li ñuy am ngir mën a def li nga xam ne moom la askan wi soxla loolu mooy PACASEN mu ànd nag ak ay ak d'accompagnement ak i procédures yoo xam ne képp koo xam ne tegu nga ci yoon te niñ la waxe nga defe ko ni da nga ci bénéfice wu ba mën cee am loo dollee ci sa budget ba mën a réaliser ay infrastructures publiques yoo xam ne saw askan danañu ci mën a dana leen mën a jàppale ci lu ci lu mel ne ay yoon lu mel ne ay hôpitaux lu mel ni ay dispensaires lu mel ni ay carte de santé lu mel ni ay école waaye lu mel ni ay addition d'eau lu mel ni ay forage loolu nag buko ko président de la république initié xalaat ko tëral ko def ko ba yàlla dogal Touba bokk ci ñi mu nattoon ne ñu ñu yàlla ñuy góorgóorlu di góorgóorlu ba liñ sàtt yiñ tegoon ne ku ko def dañ ci bokk Touba bokku ci ah loolu lu am solo la bi ñu ci bokkee nag permettre nañu ñu am loo xam ne mën nañu cee def lu toll nii godoro bi nga xam ne mën na huit kilomètres deux cent sept kilomètres deux cent quatre vingt la woon waaye ci càmbar bi ñu mujj def te bi ñu ko defee ñeenti commune jiitu ci Sénégal te ñeenti commune yooyu Touba bokku ci ndax mën naa ne ci ñi ci jiitu laa bokk man sama conseil municipal ba tey ñu am huit kilomètres deux cent yoo xam ne war nañ ko mën a goudronner ci biir dëkk bi loolu moo tax directeur technique bi entreprise bi wax na ko léegi ñu jël ay torsion yoo xam ne farata lool ci dëkk bi farata yi nag bari na ci dëkk bi ñu ko Serigne Mourtala bu Serigne Cheikh Say waxe waaye kon Ndar xëyul sotti te nit nit day tàmbali lu mu am defe ko li mën a am di def bu defee lii tey bu ëllëgee mu def lii bu yàggee lépp dana daj te loolu yaakaar nañ ko ci président de la république tali bi tàmbali nañ ko dañoo bëgg a pose première pierre bi entreprise bi tàmbali entreprise bi nag commune bi tey néewul am na cinquante pour cent wala quatre-vingt pour cent des des des budget commune di xaalis bi mobilisé nañ tey xaalis bi lépp mu ngi tegu ci trésor entreprise bi bu pare woon suba ñu fay ko avril 2022 mois de avril 2022 la tali bi war a pare ñu war a taxawaat fii inauguré ko yal na yàlla dogal ñu fekk ñu fi ci jàmm ba ñu inauguré ko ak jàmm te ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér ak njabootu Serigne tubaa gépp am na nag lu bare bari lu ñu war a liggéey loo xam ne dafa ànd ak dafa ci ren jii ci ay poste de santé ci ay centre de santé ci ay salle de classe ci adduction d'eau ci éclairage public loo xam ne ci l'ensemble de commune de Touba mboolem dëkk yi nga xam ne wër na dëkk bi mu ngi ci biir dëkk bi fas nañ ko fi yéenee def ngir ka nit ñi mën a am seen jàmm nit ñi buñ sox buñ feebaree mën a faju buñ bëggee dem mën a dem buñ bëggee jàng mën a jàng ndax ku nekk xam na ne dëkk bi laaj na éducation njàng mi laaj na taxaw bu baax a baax ndax bari nay xale tey adduna gone boo ko bëggee dimbale da nga koy jàngloo kon daaray alquranul karim yi ak école publique yi faw ñu yokk ko eh, ba ak daara sa ak centre de formation yi ba nga xam ne nit ñi xale yi danañ jàng ñi nga xam ne wéy nañoo jàng ñu former leen ñu liggéey loolu it président de la république defe naa ne ku nekk gis na centre de formation bi mu fi tàmbali muy jëf ju am solo ngir bëgg xale yi mën a jàng ngir ngir ngir bëgg xale yi mën a jàng ngir xale yi mën a jàng waaye képp ku ci rëcc ci njàng nga mën a def jàngi liggéey loolu daal mooy li ma ne woon danaa ko leeral te man nag dafa am lu ñu Serigne Abdoul Ahad yare muy wax moo jëfay yóbbaale wax waaye du wax du yóbbaale jëf bariwul lu ñu luy tàmbali ab liggéey di pose première pierre lu bari dañuy daan liggéey rek di dem ndax defe naa ne juróom-ñaari at yi liggéey nañ fi quatre-vingt-cinq salles de ci vingt-six école publiques yi nga xam ne moom la commune Touba am te ñu ngi nii di liggéey ñaar fukki salle de classe tey jii tàmbali nañ ko moo nekk en cours muy cent cinq salles de def nañ ko ci juróom-ñaari at yi ci commune Touba liggéey na boo demee ci wàllu santé liggéey na juróom-ñaari poste de sante yoo xam ne tabax nañ ko équipé ko mi ngi faj fii ñu toll ñu ngi tabax ñaar danañu tàmbali juróomi poste de santé ci weer wii xëy na suñu ministère tutelle suñu ministère tutelle euh, Omar Gueye dana fi ñëw pour pose première pierre bi muy fukki poste de santé ak ñett yoo xam ne danañ ko def ci commune bi ci suñu mandat bi a ah def nañ lu mat ñaar fukki dëkk ak juróom-ñett yoo xam ne yóbbu nañ fa ndox te actuellement ñu ngi ci fukki quartier ak ñett yu ñuy yóbbu ndox ci différents villages yi ci commune Touba. éclairage public du ma ci wax ndax li Serigne Abdoulaye waxoon lu ne fan jarul wan ku ami bët ku amuti bët jarul wax ma nga nee ndax boo ko ko waxee du ko gis yaakaar naa ne dëkk bi leer na nañ.